قمنا زكور الذي بالكاف والنون ماذا يفعل من بعد ومنون رمنا te di leen nuyu te di leen bawlak di santat yalla bu baakha baakha baax nak yalla mom mo dogal lepp deug la waye tawfiq nak moy boole nit ci la gën moko cey xir moko cey ga ba du ko sañ a dimbalul sun borom loolu mu jaar la ci Serigne salihu sant nañ ko bu baakha baakha baax di nuyu mbokk julit yep te di leen siyaar te leen balaaq luñ ci wax itam nañ xamni dañ koy waxee ci ndigalul Serigne salihu Sall mom mi nga xamni moo jité ñun dong yépp daa xat comme seqoon nañ ab liggéey ba muy yemb nak ñu né nañ fi jot leen ay cadeau yo xamni ni dana doonub soñé doonub yobbal ci ñun ñi fi ñun ñi nga xamni ne ñoo seqoon liggéey bi lool rek lañ ci jublu way lu ci mëna am itam nañ xamni ci ndigalam la sant nañ bu baax ci liggéey bi gis ngeen sëriñ siñ dajeel ko ci ni muy bégee ak ni muy yaato ñom dañuy xol jëmi siñ saaliwu ci ñun moo sun dara du tuti ci ñom comme nag ñoom ñi nga xam ni ñooy doomi sëriñ bi ñooy xool jëmmi sëriñ Saaliwu ci ñun ba jàppe ñu jëmmam ja ñun war nañ leen a jàppe luñ gàtt gàttu xalaat ni la woon ci sëriñ bi mi ngi ci ñoom ndax sëriñ bi du jël la woon ca moom di ko def ci ñun ñiy taalubeem bàyyi ñi nga xamante ni ci ay taalube lañ ay taalubeem lañ doon ay doomam nañ ci bàyyi xel bu baax balaa waxtaan wi yaatu nag dama dama daa am lu ma sëñ ba da wax léegi te lu am solo loo xam ne bëgg naa ñu fàttaleekoonte ci bu ñu xoolee léegi bi ñu demee ci sëriñ Jiili di ko siyaare euh, téléphone am mi ngi sone waaye nanguwu koo jël ngir am itti jum joo xam ne am na ko ci ñun kon nag jàpp naa ne loolu ab la boo xam ne ñun fu ñu demati di leen siyaare ku nañoo mën a ba du sone da nga koy fay mbaa nga def ko silencieux man sama téléphone kenn du dégg mu sone wu ñoom am naa ko te te ñu may woolu bari dama koy def silencieux def sama poos jëmmi notaal yi ak photo yi ñi nga xam ne dañ koy jàmbat fan yi ci kër gi ba sëriñ bi joxoon ñu ndigal ni ñu nañ ci yéeneen ñi tere leen ko am na photo yoo xam ne dañ koy def monte ko ni mooy sëñ Saliou te doonu ko ñun ñi yar xam nañ ko yenn foto yi day magal nga xam ne xam nañ ni ñii ñi ko foto dañoo sàcc photo bi comme ñoom da a metti bañ ni bañ jox ñu ndigal ni nañ ko teree ci ma war nañ fexe tamit lool bañ ñoo gaar ci njaboot gi dëgg la dañuy siyaar ñoom bég nañ ci jëf ji lool bañaluñ ñu dara waaye tamit photo wala wala film bi daanaka daanaka njariñ lu mu war a amal nit ki ba mu ciy def ci lu dul ndigalam tam daanaka kenn du xam lu muy nuru comme mbooloo mi amoon nañ benn jumtukaay boo xam dañ ni mën naa enregistrer mën a filmer buñ demee ca a bëgg ba nangoo ñu photo ko mbaa ñu filmer ko ñu jël ko bu ko nanguwut ñu bàyyi ko moo gën keneen di jël ëllëg defe ko noo xam ni xañ na ñi ngi koy séqal buñ ko gisee dina leen am ak jaaxle loolu tamit ñi ñi ngi leen koy moytandikoo bu baax baax jëf ji nag amut ci ñaaw ndax jëf bu dee da ngaa jëf farata ji ba mat nga tànnalaat sa bopp ay sas ni lii de ñoo ko ci yokkaat ngir bëgg lu gën a baax loola sant nañ ci bu baax a baax a baax liggéey bii de liñ sëriñ bi ñaanaloon gis nañ ko liñu ci njabootam gi ñaanoon gis nañ ko te li tax muy jëm ci kanam yéenente gi tax yéenente gi ñoom de yéene nañ ñu lu ne sëriñ bi yéene nañ ñu lu ne waaye nag nit ku baax yéeneem ak pas-pasam daa am daa am solo lool daa mel ni daal jàpp naa ne lu lu yeex ci sunu doxin rek sunuy yéenente moo ci ci la dese waaye desewut ci sëriñ bi desewut ci yàlla dese dese dese wut ci njabootam gi kon nag nañ gën a rafetlante yéene yi xam ne mag ñu fi njëkkoon dund nañu ak sëñ bi jamono yu tumuranke yoo xam ne ñun juddooguñ woon ba am seeni ngërëm ak lu mën a am ci àddina war nañ leen a jàppe jëmmi sëriñ bi di saytu seen doxin di rafet njort ñoom lu ñu wax itam nañ jàpp ni dañ ñëw yéene loo xam ne xaj na xamuñu ko mbaa mënuñu ko woon ñu jéem a jàppe noonee bu ko defee yéen mag ñee tam ñu ngi leen di dagaan ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Saliou ñi nga xam ne ay xale lañ té ciofel mi ngi ci ñom loo xam ne ëmbal nañ ko sëriñ bi xañ nag yàkkamti ba ñak xam moo tax ñuy doxé no xamni xañ na wut ak la ngeen non ñi ngi ñaan ngir yalla ak sëriñ Saliou ci ndam ndéem ji rek ngeen bañ ko leena jappé ak ak jabeel wala xébel wala toroxal ba dara buñ leen dee teete ci ni rek yag yag danañ mos a jaar ci yoon waaye nak ki xamut dañuy def fexé bam xam ki bëggut tamit ñu fexé bam bëgg loolu nag léegi daanaka doolé du ko def xeemeem lo rek mo koy def dañ leen ci gëna jappalé bu baax cofeel géeg bëggante géeg lip mom, dafa am ameen go xam mo moo taxoon nang ma bëggoon bis ni ki tey bis ni ki tey kanam da bari ay ay wute yu ñuy faral di dal lool loolu mom xuumu ko waral waaye da wara a mën warna jeex siyaar bi barab bii war nañoo fàttali lu baree bari suñu diggante Sëriñ Saaliw barab bi ñu tok nga june def nañu ko agala nañu foofu barab yu kawe ci suñu borom bi tabaaraka taala fii la ni ni joxuñ fi ni fi la néeg bi fi ak njaay àll di dàq moroomu njaay àll ba mooy gaynde ak a ak la muy dàq ba fekk sëñ bi fii muy bind mu mu taxaw gàll gàll ko ñaari tànkam ya te booba yàqul sëñ bi la doon def dara kon daa mel ni barabu muccukaay la barabu fajukaayu aajo la ma bëggoon nag ñu waajal ci siyaar bii jëm si ak xelkom gi ñu jëm si sëñ bi dañu koo joxoon te xam nga nit buñ buñ la jiitalee buñ la jiitalee te te liñ la jiital mën ta ñàkk a sotti su nga sotti rek muy bëgg ngay bëgg te lu ne dañ ko danañ ko ci daj amon nay jamono daanaka sëñ Saliou Sall mi sëñ Moussa Gueye sëñ Mamoun duñ nelaw ñi ngi takkaayu di laaj nu ñuy def nan la def bam soti kon nak ma bëggoon tay waxtaan yi day bari te te am day am yo xamni da daa xamul xamul luñ ci jublu man dal bu sañonati ngir yalla ak jëmi seigne salou waxel kom gi ñi jox ñetti daara la dañoo bëggoon num yembe tax ñu doñ ko ni won wa Touba ñi lañ dox jox daru salam wa Njaareem ñu Touba xel kom wa dakar yi daru khudus ay doñ la comme nak ñun ñi jité duñ fa joggé te yembut dama bëgg ngir yalla ak jëmi seigne salou nañ fexe fexe ba nosee ko noo xam ni buñ ci jubatee ñetti fan ñeent mën na àgg liggéey man naa àgg wóor na ma wóor yàlla ni mën nañ koo liggéey ndax li jafe-jafe yi répp wàlli wàlli koppar la rek wàlli koppar nañ ko nañ nañ nañ ko lijjanti dajalee ko noo xam ni ñun ñun ñu nekk daaru xuddoose moom wóor na ma wóor yàlla ni moom moom moom te maa ngi leen koy digal te wóor na ma ne buñ leen ko digalee danañ ko def mooy daaru xuddoos xam ngeen ni daaw juróomi fan ngeen ko liggéey xaw ma juróom xaw ma ñeenti fan boo xoolee daanaka xaajub lañ liggéeyoon daaw lañ ko liggéey mbooloo maa ngi yokk bëgg gaa ngi yokk xéewal yaa ngi yokk ëllëg moom ñun de Tuubaa Xelkom wóor na ma wóor yàlla ni fa lañ fas yéenee tàmbalee moom fa la ñuy tàmbalee jëm ci kaw danañ ko defee noo xam ne daal bu lee di yëpp danañ àggandoo te te day a nekk mooy bañ ciy wut daraja ci bañ ciy naan waa Ndakaaru dañ fay fore dañ fay wutee wërsëg rek waaye man xam ngeen ni dëkk ma Ndakaaru maa ngi dëkk daaru ci benn ci àll ba wetu mbuur ay bis bu nekk dama fay dem kon nag ñu xam ne liggéey rek moo ñu fa nekk waa nangam waa nangam yooyu yëpp ay tur la yoo dañ koo def rek sëñ Saliou Sall mii mooy suñu jëwriñ nañ ciy waxtaan ak moom di ko bàyyi xel lu mu ñu wax rek ñu def ko te ñu waajal ko waajal woo xam ni xam naa danañ ci danañ ci defaati waxtaan yoo xam ni danañ ci gindee konta buñ ca bëggee dem lépp sotti ngeen baal ñu wax door dem waye sant nañ sant nañ bu baax baax ci liggey bi sant nañ ci lool ginaaw bu serigne bi jotlé cantuk bopam gi nga serigne cheikh bañ ko fekke xaban dañ li tax ngeen wara xamni yalla nangou ne senum bir moy fi ngeen fekk liggey bi di fi yembé ni ni liggéey bi da yemb rek ñu fekk ko fa digal ñu ni nañ wër daara ji seet ba xam lan lañuy ñuy fàttali ko wër fàttali ko xataay gek ni mu démé won nga xamni ñun ñafa fa xamnañ ni boy yëngutu rek dem ci toolub jàmbur te jamono booba fitna bi da daan bari lool mu xam le ni lépp suñ bee ko moomoon waaye fexe na ba jëlaat lépp ba moom ko te gis nga cofeel gi am ci ñun moo tax ba léegi daanaka ku jébbul ci moom te nekk ci gox boobee wala daayira bu mu xam boo ñëwee rek dana da koy jox suñ numéro ne na ñëw ànd ak ñun ngir ñu sóob sóob leen ca melokaan wañ yor comme suñ sëriñ si wóolu nañ ñu gërëm ñu nag ñun suñ bopp ñoo war a ñoo leen war a gërëmewaat gërëmin woo xam ni lépp luñ takk ba di ko def ñëpp danañ xam ni nii rek la war a mel la war a mer ngeen fi ñu nekkoon sant nañ baax la kàddu yi dul mën a gudd waye goor ñeeg Jigen ñeeg képp koo xamante ni ci liggey bi safna la ba nga bokk ci loola mooy tegtal ni am nga ciir ci serigne bi nit nak bo fekke serigne bi defal na la lo xam da nga nan defalu ko kenn da ngay xam li ñepp sañ yow sañoo ko bo amé serigne bi lu kenn amut ci moom mooy tegtal li ñepp sañ ci ci sofaan yow sañoo ko ngeen ala